ñi jël àllam dem mais lan moo tax moment bi nit ñi di rey bakkan te ba pare di ko deg ci tayeef ñi di rey seen doom ñii di rey seen soxna ñii di am soxla di ñëw di rey seeni voisin yoo xam ne ñooy liggéeyandoo loolu mbir la moo xam ne ñi koy def moment bi ñu du lu ñuy tey pourtant naa ñu ne yéen sëriñ si yéenay digal gaay pour ñuy def yu mel noonu di tuur deret loolu dafa am ñaari xeeti sëriñ yu am na sëriñ nag lañ koy tuddee waaye du sëriñ nit ki nga xam day day ñaan ci lasaraar xam-xam bu sell di ñaan ci yàlla yor turu yàlla wu set di def lasaraar kooku lu muy rend sax ci chariatul islam yi la koy rendee loolu amut benn jinne bu muy recommandé muy ñëw di def n'importe quoi ki nga xam ne nag mooy indi yooyu mooy ñuy def ay sacrifice di jël ay morceaux yu xonq di jël ay mbir di jublu soow di ko rend ñooñu ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy invité jënd yooyu loolu nag loo ko wut dara ak sëriñ wuñ dara ak sëriñ kon ñaar yoo xam dafa différencier mais nag Sénégal moom ñëpp sëriñ lañ leen woowee d'une manière général sëriñ lañ leen woo waaye nag dafa am ay pàcc ci biir ñi def lasraar moom lépp lu ñuy def dañ koy jaarle ci yoon wi nga xam ne moom la lislaam santaane ñu rendeef ñu rendeef ñi nga xam ne nag bugguñ loolu dañuy rendee ci beneen façon ngir lépp loo gën a def ci lu mu gën a ñaaw gën a bon rek jinne yooyu dañ lay gën a gën laa jege gën a mën a dox ci say mbir mais seen mission du dara lu dul gën laa génn ci diine ji lépp loo xam ne lu araam la ñu def loola ko ba yow amatoo benn lu ñaaw loo defagul nga xam ne yow génn nga ci diine complètement ñu doog détaché wu ak yow nga xam ne yow nit ku torox kay doon nit nga ko xam ne ñooñ ñëpp boo ci xoolee seen mujj dañu doon ñu yàqule ñu torox loolu nag mooy rol bi jinne yi yooyu di dox ci ñoom mooy dañuy fexe ba njaalo lislaam taraamal ñu njaal loola rey loola nit gis nga fi ay sëriñ yu ay nit ay jinne ñoo leen laaj loolu ñu koy def loolu mën na nekk pour man seen sago la loolu du seen sago nit bu téemee nit rend ko du sagoom ci moment bii li ngay gis muy sëriñ si nga xam dañuy laaj nit bakkan mu nit rend ko wala nangam te bu ñu xoolee ba ci biir sëriñ ko digal loolu seytaane lim ci lim ci amee victoire am mooy mu fexe ba def loolu lépp lu yàlla tere rek ba nga xam ne génn nga ci jullit ba set wicc ba nga xam ne yow leer na ko ne yow boo faatee sawara nga jëm mission am ci yow yaa xam foo jëm su ko defee nag yow génn na ci yow mi xoole keneen kum dugal foofu. moo tax kon déggee bu ñu gisee kon ñoo xam te ne day dem benn instant def leen naka su dul noonu. waaw seytaane bu lu duggee day dem ba fuuti loola dem ba mënutoo jariñ société bi ba société bi da nga koy wan ginnaaw yenn sëriñ yi def yooyu souvent boo demee ci seen bërëb da ngay gis ne ñi yére yu tilim lañu sol duñ mën a duñ mën a civiliser ñaaral bee duñ mën a jëflante ak nit ñi dem ba éloigné leen ak nit ñi waaye nag dañuy doon ñoo xam ne presque dañ leen a jàpp comme jàmm dañ leen digal ñuy def ñu leen tere ñuy bàyyi moo tax yor lu wér lu set doon alxuraan wala tur yàlla lu set mooy li mën a jëriñ jàmm bi fii ak ëllëg waaw. seen taxawaay. ci bërëbu ñaan yi ngeen def tey ñu gis ñoo xam te dañu am na problème ci seen néegu sëy ku am problème néegu sëyam nan nga mën def ak moom pour mu jubóowaat ak borom këram wala mu loolu dafa am ñaari yoon ñaari yoon yi mooy nit ki bu ñëwee day aajowoo nga tasxiiral ko nit ngir jëflante moom moom mën a wala nga noobal ko nit loolu nag mën naa am ci ñaar noob muy nit bëgg soxna ngir bëgg koo denc nga noobal ko mu mën koo denc wala mu am soxna ñu am jafe-jafe nga noobal ko mu gën ko bëgg. waaye jubluwaay bi ci sëriñ bi di am nag mooy diggante ñaari nit ñooñu neex bañ mën a sëy di produit di am ak njaboot njaboot googu di yokk xeeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ak fay la ci am ci yàlla bu dee yéen jooju la ci am liñ ciy bañ nag mooy nga noobal nit nit mu jàpp ko di ànd ak moom di def nag sudul noonu di ci mooy yàlla te ndegete loolu la ci bëggoon loolu lañ ciy bañ waaye nag ñaari yi moo am nga noobal nit ki wala nga tas xeeral ko bu dee noob nag moom ñun ci ñetti fan lañ koy lañ koy liggéey ndax képp koo xam daf lay defal nopp mu doon ci yoon lasaraar di jaar ci turu yàlla yi mën naa doon lu gaaw te jàppandi bu fekkee ci sangat kese nga yem waaye nag mën naa yàquwaat waaye nag bu dee ci kurus nga ko jaaree moom mën naa doon lu sax ba faw lépp loo xam ne kurus tabax na ko ci àdduna du ma sa daanooti misaal mi nag mooy kilifa diini yi nga gis ci Sénégal lépp luñ fi tabaxoon tabax ko ci seen kurus ba tey du daanu day jëm kaw. dinañ euh, ñaan bi. ñu lay laaj ndax ndax mës mbër mës na ñëw ci yow fu nga ñaanal ko mirti binaaran ay yooni yooni yooni yooni yoon am na ay ñoo xam ñu ngi jëflante ñun ci wàllu bëre wax dëgg yàlla ba ci wàllu football ba ci coupe d'Afrique bii jàll rek am na luñ ci waxoon des na la ko wan nga gisal ko sa bopp bu la neexee bu la neexee sax nga partagé ko dinaa la yónnee vidéo bi loolu la ma ci waxoon mooy dama leen wax ne leen waxtaan nañ ak kilifa yi déggoog ñoom liñ leen wax ñi ngi ciy teg seen bët danañ indi ndam li danañ leen yóbbu final te dinañ jël coupe bi indi ko te lool lu jiitu coupe d'Afrique bi lañ ko wax te bi coupe d'Afrique bi ñëwee noonu la demee lépp lu ñuy wax lu ñuy teg suñu bët la te lu ñuy teg suñ tànk la te mbindeef muy dox du ko mën a dindi incha allah. parfois ñu gis kuy jaay marché marché bi taxaw te pourtant dafay am marchandise mu am marchandise boo xamante ne nii ki mu dendal amu ko ki mu dendal dafay jaarle te moom du jaarle lan moo koy waral. li koy sabab bëri na yàlla deful dara ci hasard. nit dina yor marchandise bi gën a riche yor place bi gën a mag nit ñi di ko romb di jëndee ci keneen te pourtant li am ci place am moom fee di nga gis ñuy rang nit képp ci am marché ñeneen ñim dendal ñëpp ëppale wu leen place gën leen a ëppale marchandise loolu dafa am ñooñu lu luñ jëfandikoo loo xam ne xam-xam la boo xam ne moo fay xëcc nit ñi ngir ñu mën a jaay yii nag dana waral nit ki di nekk ci marché am marchandise te du mën a jaay mooy nit koo xam day umu wala ñu liggéey ko maanaam yàq place bërëb dañ koy yàq mën nañ ko yàq ba loo fa mënti def lu mu gànjar ak gànjar lu mu riis riis lu tax nit ñi yittewoo ko nit ñi duñ ko xemmem. balaa ñuy continuer ku palaasam yàqu ndax loolu am na solution. dañ koy defaraat dañ koy defaraat. yow mën nga defar place bu yàqu maanaam ku ku ummu daal. dañ koy defaraat loolu dañ koy defaraat yàlla mooy fekk lu dee mu dundal ko jàng nga alxuraan yàlla dana fekk lu dee mu dundal ko dana fekk luy dund mu rey ko. loolu nag aaya la ci alxuraan yoo xam dañ koy junj waaye dañ ko wax waaye foofu la ñuy jaare di dekkal bërëb boo xam dafa dee nit koo xam dafa dem ba wërsëgam tëju it mën nga koo jaare foofu dekkal ay mbiram mu yëkkati ko waat doxaat noonu lay demee waaye bépp place boo xam ne yàqu na dañ koy yàq oto dañ koy yàq fas dañ koy yàq yooyu yëpp day doon bërëb yoo xam ne mbir yoo xam ne dañ koy yàq ba nit dootu ko mën a jëriñoo bu mu ci mënti doon it luñ mën a defaraat la bam normalaat nit ki di ko mën a jëfandikoo ci li xam mooy daj dëpp gi mu nekk doy waa mu nekk mbirum góor ñu ne ma demal seeti euh, Serigne Gueye mu nekk koo xamante ni ay na ci mbir mi bu baax a baax te it yàlla may na ko si loo xamante ni amul daray bàkkaar fooy jaar ak ñoom. waaw bu dee wàllu ngóor moom dafa am ay yoon yu wuute yu fasantikoo am na koo xam dafa judd rek tële kooku moom bokkul ci course bi yàlla moo ko dogal du tax ñuy wax am na koo xam ne nag moom dafa juddu nekk góor am kàttan di dem bam yàgg kàttan loolu di wàññeeku muy impuissance sexuelle. kooku moom manees na koo saafara te yor nañ lu ko saafara am na koo xam ne dafa nekk góor dem ba mu yàgg mu tële complètement mënut a yëg boppam ci dara kooku it dafa tële rek dafa yomb manees na koo daf koo dab danañ ko mën a saafara am na koo xam ne moom mën naa yëg boppam nii rek waaye mënut a jëflante ak soxnaam ci dara kooku it manees na koo saafara yii daal ma la ci limal képp koo xam ne daal na la mën nañ koo saafara ci diir bu gàtt incha allahu taala. diir bu gàtt incha allah. dañu ñëw ak ci combat Sa Thiès Reug Reug balaa ñuy continuer. Sa Thiès dafa mel ni Reug Reug ko làmmiñ de. waaw nag xam naa duñ ci mën a bëri wax ndax dañ cee am koo xam ne moom lañu àndal loolu moo tax duñ ci mën a wax wax daal dañ ciy liggéey incha allah. dañ ci am client moo tax mënoo ci sori. boobu ci wax dañ ciy liggéey. dañ ciy liggéey daal kon nan bàyyi noonu euh, tey jii sëriñ bi sa taxawaat ci Sénégal fan nga taxaw senegal actuellement ci ñaaw-ñaaw yi fay am ñu gis ni ñu ngi rey ay sëriñ ñu ngi am na fan yi rek am na benn waay bu doon tabax jumaa dañ ko mujjee rey ndax yéen seen vie nekkul ci danger yéen ñuy ñaanalaate waaw loolu nag mooy ku nekk jël say responsabilité ci li ma doon junju sànq muy mbindeef yi nga xam ne dugguti nañ fi te ñun ci suñ biir ñoo leen fi indi li leen fi mën a jëlee nag mooy kenn ku nekk ci ñun nga jóg ci sa bopp wut muslaay wut kaaraange gu dëgër ak dund du ay caaxaan bu la ko yàlla joxee am na ñu ko xañ am na ñoo xam dañuy judd rek faatu am na ñoo xam dañuy judd faatu kon yow bu la yàlla jëlee sepp la ci nit ñi jox la dund na nga fonk dund ko bu baax. te moo yi ñuy jëfandikoo ngir mucc sax yàlla wàcceel nañu kon yàlla xamal na ne ñun danañ am yu ñuy jànkonteel kon képp ko mën a doon ci àdduna ngay dox am ak njaboot wala nga ñàkk ko na nga wut kaaraange képp koo xam ne foowe nga sa bopp lépp loo mës a tabax ci àdduna mën nga ko tabax téeméeri at xëy benn bis ñu yàqal la ko ci njabar wala jinne yàqal la ko wala rab wala seytaane wala leneen kon nit ki waxtu bu muy dox rek war naa a jël ay responsabilité yàlla may na la xel may la ak wér may la kàttan ngay dox war ngaa mën a jug sa bopp ba bépp mbir mu jigéewut ci yàlla doo mën dara nit ki nga xam ne am na njaboot bàyyi boppam ne yàlla laay bàyyi sam waaye yàlla yàlla bay sa tool lu mën a xel da ngay sabab lu wut ay kaaraange muslu yàlla musal la xam ne kii kat lii la bëgg mu fekk si ko si musal ko loolu mooy njariñ tey njaboot gi nga xam ne am nga leen boo boo fi jugee bàyyi leen kan moo leen di tee kan moo leen di sàmm ndax duñ tumuraanke moo tax nit ki bu nekkee ci dundam am xelam yàlla may ko ay matukaay na jug ci boppam aar boppam ba lépp loo xam ne jugee wut ci suñu borom du ko mën dara gis nga mag ñi buñ defaraan ay tool sax dañ koy ñàkk ñàkk boobu dañ ciy def ay dëkk ngir képp ku ko bëgg a tëb digi jam la wala dara du fa mën a dugg noonu la nit ki war a def boppam ñàkk boppam ba leneen lu jugee wut yàlla du mën ci moom dara képp ku ñàkk sa bopp nag képp kuy jéem a tëb ñàkk boobu loo ko ca dal moom la mooy ñuy wax ne kaaraange boo ko defee nit bu la liggéeyee dee dafa aram dee loolu dara nekku ci ku ñàkk sa bopp ku la liggéey moo xam moo fekk kërug jàmb guñu taxaw mu fay jéem a tëb bu ko leneen dalee moom moo ko indi boppam moo tax li may dikk Sénégal yi daal di leen ko tàggatoo mooy ñu gën a jógaat seen bopp gën a wut a xam dund gi ñu am mooy lan ndax dund lu cher la lu jafe la tàggatoo dafa teel dañ lay laaj ci mbir ñi tukki gis nañ ñi tukki am ay problème këyit dañuy am problème ay jafe fan ngay jaar ak ñoom xanaa nañ ci amul solution waaw ñooñu moom bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci jëflante ak ñoom këyit moom wax dëgg yàlla suñu borom am lu ñu ci dénk te it ñoom xam nañ ñu ci bu baax a baax a baax ñu ci bëri it buñ seetaanee dinañ dinañ dinañ mën a approuver loolu gën koo dëggal euh, ñaareel bi ñuy sàkku yit ñoom ci lépp lu ñu mooy bayre tubaab loolu it am nañ ci ay yoon yu wér ay xeeti garab yoo xam ne spécial pour pour tubaab kese la am nañ ci ay yoon yoo xam ne ñu ngi koy tëggee ci fa buxital lësi kafara lool moom ñoom ñëpp xam nañ ko te it mbir la moo xam ne képp ku koy jëfandikoo suñ borom dana la tàggatal nit ñu weex ñi moo xam arab la moo xam nitu nasaraan la yàlla dina leen tàggatal te danañ am xolub jox la xam nit ki mën naa am bayre boo xam nit ñi dinañ ko xam di dégg turam waaye duñ ko mën a jariñ am na koo xam ne nag day siiw rek dañuy dégg turam waaye kenn mënu koo xam waaye am na koo xam nit ñi dañ koy bëgg xam ko di ko jariñ di ko mën a jox seen alal dangay gis koo xam day ànd ko tubaab di ko defal lépp waaye tubaab ba manaam a am alal jur waaye ngir mu jariñ ko mooy doon jafe-jafe loolu lépp nag ay mbir la yoo xam ne képp ku ci jëflante ak ñun suñu borom dana la dimbali allah. ñu ngi jël sa temps bi mais ña mënul ñàkk suñuy question daa bëri maanaam bayra nga baal na ci question yu bëri yi bayra maanaam bayra ku bëgg a tàkk. waaw taal nit moom du ay caaxaan mbir la mu am. waaye nag li ñu yor moom lu riche la loo xam ne du ko ñëw rek ñu jox la ko dafa am ay conditions ak charte charte yu nag képp ku ci dëppoo ak ñun ñu mën la ko defal am na mbir yoo xam ne danañ ko wax junj ko mu leer am na yoo xam ne ëpp nañu koy wax ci télé nit ñi di ko dégg am na yoo xam ne duñ ko mës wax ci kanamu écran am na secret yoo xam ne pour nga am ko rek da nga génne ay millions wala nga sàkku ci nit ay at mu doog la ko jox yooyu nag doo ko am di ko caaxaane loolu moom nit du ko am di ko caaxaane am na daal nit bu bëggee alal am na yoon yu muy jaar am alal. nit bu bëggee tur yëkkatiku daraja am na yoon yu muy jaar am alal am tur woo muy sàkk wala daraja jooju loolu nag ay mbir la yoo xam ne duñ ko mën a expliquer fii waaye daal képp ku ko bëgg moom mën naa ne ko waaye nag dang ñuy jox lu ñu jaral ñu defal la ko ku ko mënul nag yaa xam loolu moom duñ ci sori. ku ko bëggul yaa xam yaakaar naa ku bëgg dara di nga def dara euh, sëñ bi. baa ngay tàggatoo faaw nga may ñu sa numéro téléphone ci man pour ñu mën a xam ku soxla euh, ci ban numéro la lay woo. waa ñi nga xam ne ñu ngi ñuy woo mën nañ ñëw woo ci euh, numéro orange bi 77 414 414 4 414 64 04 mën nañ ñëw woo ci numéro 414 64 04 am na whatsapp ku ci woote appel normal yi jot incha allah. mën na noo xam dëkkuwaay bi fan la. waaw bu dee damaa nekk dakaar maa ngi nekk fii Géejawaay bu dee nekkoo fi nag maa ngi nekk Jooxaar ci wetu Fatick ñaari bërëb yooyu laay nekkoon. woo daal ak fu mu mën a nekk mën nga sax oreille ko ko. waaw bu dee nit ki ñu jëflanteel moom fu mu mënti nekk rek dana ko fekk ndax GP yi dañ leen jox ay yóbbante oreille yi dañ leen jox ay yóbbante. Mhm. nga jaajëfal bu baax a baax. waaw kay jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu émission bi di ñaanal seen site bi yàlla defal leen tawfeex Mm, di leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu ñi nga àndal ñëpp di sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu